ñu déglu tuuti kaddu yu ko ci jëwrin Yankooba kaddu yooyee lañ leen fas yéenee jàllaleel yéen ñëpp ngeen teewlu ko du suñuy kaddu kaddu yu jëwrin yi la nee na gannaaw ba mu leen santee ba pare ci liggéey bu am solo bi nga xam ne lenn taxul ngeen def ko lu dul sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul yal na ngeen ci dappoog ngërëmal sëriñ bi ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall Lamp rafet lu ne liggéey bi xolam sedd na ci te moo fii sëñ Tuubaa bu xolam seddee rek xolub sëñ Tuubaa sedd nee na rafet lu ne liggéey bi xolam sedd na ci guy waaye dafa am leneen lu ci laxasu muy fédération Serigne Touba bii nga xam ne taxawal nañ ko fii ci Touba Argentine te mu yor mbooleem liggéeyub Serigne Touba bu ne ci dëkk bi ñuy waajal nag màggalu Touba fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ñu naan ko 18 safar te muy suñu warteef ñun murit yëpp kenn ku nekk ci ñun tey boo jekku woon boo jekku woon jekku jekku jekku mbir mi tey yaa koy defal sa bopp waaye comme kenn ku nekk jekkoo ñu mbir mi ñu woyofal ko ci suñ biir def sas yi 4000 pesos 4 million yooyee nag am na lu daje am na lu dajeegul ñi ngi soññee nag ci kattanu sëñ Touba kenn taxul ñuy def kenn taxul ngeen di def lu dul sëñ Touba xaadim rasul kon nag na ñu jël 4 million yu teg ko ci digg taabal ji ñu màggalal sëriñ Touba ndax sëriñ bi dong nga waral màggal gi sëriñ gi dong nga war a cant gi dane woon lot naa ci sant la sama bopp dama bëgg ngeen sant leen la santale leen ma sama borom kon nag santalee ko boromam googu wecceewul ñu jógee ba Sénégal ñëw fii ci Touba Argentine jël suñuy addiya def ko ci màggal màggalug sëñ Touba gi bu desee ñu def ko ci kër sëñ Touba gi te xam ne noppi na ba pare li gën a métti nag ci murit nekk ci dëkk bi ne yóbbante naa Sénégal jox naa sama sëriñ màggal gi duma ci def dara te mu leer na la fii nga nekk nii ay nit a fiy màggal berne ya fay nekk ña ko joxe joxe nañ Sénégal jox seeni soxna jox seen ab sëriñ yow nga nekk Argentine nga ne du jox waa Argentine dara ndax kat màggal naa Sénégal loolu nañu xoolaat toogi ni nañu xoolaatit xel yi nañu xoolaatit nekki ni kon nag du ñu def ludut jox jëwri kàddu yi dañ doon tijji rek ñu waxtaan ak mbooloo mi soññ mbooloo mi suñu borom nangu lépp lu ñu fi ñaan nangu kàddu yëpp lu ñu yu ñu yu ñu fi wax te muy kàddu dëgg ci barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall làmp kon ñu ngi leen di tuubal bu baax di jéggalu ci kàddu yi xëy na nag maanaam ñun moom ñun ñooy tut tànku daayira bi ñun ñooy seen rak ñun ñooy seen lépp ñun ñoo jege ba tax lépp lu ñuy jàllale rek dañ koy commencé dal di leen yaatal jox leen ñoom ñuy suñuy kilifa ñu tijji waxtaan wi kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñu jox jëwri ni kàddu yi rek te teewlu leen Serigne Bamba Niang kon ñu jox ko kàddu gi rek te daal di teewlu. salaamaaleykum wa rahmatullah wa am am mbokki taalibe ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen baalu àq bu baax ginnaaw bi ñu leen baalee. di rafetlu it daanaka kàddu yi comme noonu ko Assane Baye Fall waxee moom daanaka sax lépp matoon na ndax bi ko jëriñ joxe kàddu yi rek te jottali loo ko mbooleem li nga xam ne ay cant la li jóge ci moom rek daanaka ñun ñëpp ci la sañu kaddu dugg waaye nag daa fekk ni comme ni ko gaa ñi waxe saa su ne rek fas moom lu mu daw daw daw dégg ali te jamono ji fii ñu toll nii comme noonu waxee noonu képp la deme maanaam li sabab li li li sabab ñëw gi fii kenn ku ci ne ci ñun war naa xam lu mu doon lan la mooy maanaam màggalu sëñ Tuubaa gii ñuy waajal moo fi indi daje gii nga xam moom lañ fi daje tey ji màggal gi nag kenn duñ ko defal ñun ñii ñoo koy defal sañu bopp ba tax na noonu ko Assane waxee te muy kàddu yoo xam ci jëwriñ la bàyyeekoo ñu bàyyi ci xel bu baax kenn ku ci ne jëm cee góorgóorlu sa tu lay kattan képp koo xam ne it daana xam loolu ñuy laaj xool nga ba xool sa digganteeg sëñ bi bu ma teewul na nga xam ne noonu nga jàpp ne noonu la war a dem loo ci am loo ci am ndax sëñ bi moom ba muy wax defe naa ni moom ñaari keefi la tuddu muy diggante ginaar ba ci giléem kon kenn ku ci ne nag yaa ci natt sa pas-pas sa digganteeg sëñ bi waaye sëñ bi moom lu ci waay def rek na la leer ni maanaam sa pay noonu rek lay toll ba tax na kenn kenn ku ci ne ci ñun rek xëy na am na ñoo xam ñu ngi tënku ci ay daayira waaye am na ñoo xam ne tënkuñ daayira fi mu ne nii daanaka bu buñ jugee fii place buuba caam lañ jëm ngir réunion boo xam xëy na bopp jëwriñ yi war nañ faa daje ko képp koo xam ne am na loo xam bëgg nga kaa barkeeloo ci bis bi te xëy na tënk tënkuwoo ci daayira yi nga xam ñoo nekk ci dëkk bi boo ñëwee ba foofu boo ko joxee gaañ yi danañ la ko defal ci màggal gi waaye ne ci dëkk bi daal moom doonub murit màggal bu sëñ Tuubaa bi ñëw ba romb te sa ñàkk dugg ci wóorul loolu moom wax dëgg yàlla wóorul te it noonu mu ko waxee noonu la demee dafa am liggéey yu mag a mag yu ne sañu kanam yoo xam ni wallaay lazim dañoo wax dañuy wax ni sax màggal gi lenn la ci ponk yi nga xam ni maanaam ñun moo aju sañu kaw kër sëñ Touba gii muy junj daaneko daanaka kër gi niñ leen ko waxee woon keroog bi ñuy taxawal fédération bi noonu la demee kër gi dem nañ fa sàqu nañ ko señaan nañ kër gi daanaka xaaju xaalis bi sax joxe nañ ko li ci des nag ajiwul ci ñun borom kër gee ñu war a euh, euh, ay këyit yoo xam ne moom la ñu war a firmaan ñoom ak escribaañ yi te bu soobee yàlla suba suba suba bu noppi woon li fi des ci at bi yëpp dinañ ko jël këpp ko ci kër gi te kooku kat defe naa ne bu ma juumul ñun taalibe yi ne fii Argentine ñoo ko amal. waaye it gàcce la kenn ku ci ne natt sa bopp ci kër sañ Touba gu dem nga yegg te sa dërëm dugg ci. loolu nag li koy li ci dimbali nit mooy fexe ba daayira sëñ Touba yi ne ci dëkk bi ñu dem inscrire ci képp koo xam ni bokkoo ci ab daayira demal inscrire ci daayira yi wax dëgg yàlla ndax liggéey bi fa la gën a mën a gaawee te it boo gisee ñuy wax lépp a ngi dox walaay lazim lépp a ngi dox waaye boo gisee wax yi bëri rek mooy ñun ñi nga xam sañ borom ñun la dogal ñu jiitu walaay lazim li ñu yéene sañ bopp lañ leen yéene. te xëy na mos nañu loo xam ci ci ci liggéey bi maanaam mënuñu kaa sax nag faram-fàcceel nit ni suuxar mel ci làmmiñ noonu la mel waaye daal ñu ngi ñu ñu ngi ñaan rek ñëpp ñëw jàpp ci liggéey bi te xam ni mooy sañu taw féex waaw mooy sañu taw féex kon nag eh, foofu rek lañuy ñuy yemale yi te xam ni guddi na te waxtu bi ñu mayoon daanaka yegg na xam naa li ci def dañuy jox jëwriñ rek mu teg ci ay kàddu ñaanal mbooloo mi yëpp ñun ñëpp ñu laxasaayu nag te xam ni màggal gu kon fii lañ koy defee ci SAES Peña mercredi le huit waaye niñ koy waxee saa su ne rek la jiitu màggal gi daal moo ëpp solo te mooy li murit yëpp di def ñu feexe ba képp koo xam ne rek ku yaakaar sëñ Tuubaa la defandoo ko ndax kàddoom ga de ba mu koy wax wutalu ko woon ñii wutalu ko woon ñee dafa ne képp koo xam ni rek sama mbég sa mbég la ñëw leen santale ma yàlla ci bis bi nga xam lépp lu mu am ci àdduna moo moo ko may la mu am alaaxira rek moo ko may te loolu nag sëñ bi ñun la doon junj rek waaye moom la may la la mu yor la may laata muy génne mbàkke baari gii laxas woon na ko ba noppi daa fekk nag na ko sëñ Abdoulaye daan waxee rek ba mu ba mu ca ca ca ca ca ca jàqee daaru Xuddoos jee la ko fa sëñ borom rangoon kum ko mës a ràng rek yaa jaakaar nga ni sa liggéey fii nga koy yemale wala ak wàcc la dese waaye keroog bañ ko ko rangee mu gersu gisuñu ci ginnaawam xam ni ay jaam jaamaa topp nañ ci ginnaawam te mënaluñ seen bopp dara te xuus ci biir manding gi de moo leen di may loo xam ne tey jii moo leen di jariñ wala géey looloo tax dugg sëñ bi jël manding gi dugg ci yoonu géej gi kon suñu jëmm yi rek a tax nañ leen delloo njukkal nañ leen delloo njukkal sëñ Touba jéem a dooni gor gor nag baat la bu gàtt boo xam ni boo ko waxee sa morom mu bëgg a rey boppam waaye goree di ci lenn képp la ne nga xam li la yàlla defal ba noppi te santoo kon war na ñoo xam li ñu sëñ Touba defal ñu sant ko loolay gor gi te gor gi nag mooy xool la mu gën a bëgg ñu teg seen te benn baat la mu musa di ñëpp dégg ko muy màggal gi la mu sa wax ni maanaam ñëw leen santale ma sëñ Yàlla kon jàpp naa ne bu sëñ bi doon woon ndimbal dañ naan ci bisam bii la musa woon ndimbal kon képp koo xam ne ab murit nga rek wallaay lazim waroo am sago bu màggal gi jege kon nag ñu ngi woo mbokku taalibe yëpp sas yi 4000 la woon man damay wax ni sax bu ñu bu ñu sañoon di wax dañ naan kenn waru kaa wàcc ndax ñun ñëpp a ngi sant yàlla Argentine gii lañ nekk koo ci gis fi mu nekk nii mu ngi ci natt 1000 peso wala 1500 peso wala 2000 peso te chaque jour nga koy natt kon nag di ma wax saa ne rek li ñu sëñ Tuubaa woo at ba at wallaay lazim war nañoo jaayante te xam ne lii ñuy laaj te mu jóge ci kàddu jëwriñ bu ñu xayma woon maanaam li ñuy am ci at yëpp. maanaam boo ko doon xaaj fukk téeméer yoon du tax nga jege euh, lim bii nga xam ne moom la jëw di njëkkati kon daa mel ni kon li ñu laaj mën nañ ko sëñ Tuubaa nag teguñu lu ñu mënul ñun déedéet moom kañ moo tegoo woon lu mënul ndax moom moo waxoon sañu borom ne ko bakkan bi laa ko sàqul ba xam fan lay yem fu mu dul yam waaye yaram bi moom maanaam jom ji moom lu mu diis diis diis diis diis diis diis jom ji attan na ko kon kookoo tegoo woon lu mu mën waaye ñun moom li ñu sëñ Tuubaa teg mën nañu ndax dañoo am téeméer te benn képp lañu ci laaj ndax benn yoon la ñu woo ñun ñëpp ñu sant ko yàlla ci bés bi kaddu yooyu nag nañ jàpp ni kaddu jëwriñ Yankoo ba yi bu ñu xool jëmmam ji bu ñu xool leen nañ xam ni waxib sañ Tuubaa la boo xam ni rek lu ñu nar a dimbale ni ñun ñëpp ñu fas yéenee jaayante ñun ñëpp rek ngir jëmmi sëñ Tuubaa ci sax fexe ba matal 4 millions kenn ku ci ne teg ko fañ ko war a teg ñu jël ci màggal ci màggal gu mucc ayib buñ ca jugee lu ci des ñu jël ko këpp ko ci kër sëñ gii kenn ku ci ne xam na ni sëñ Tuubaa bind waxal boppam ne maanaam kër gune këram gu ne wecci wecc na masjid gu taxaw te loolu nag dañoo war a xam ne ñun ñëpp ni ci kaw suuf moom dara desu fi nu ko gaañu baax ñuy waxee rek tabax fi jumaa joo xam tey jii ba keroog boo faatoo yiw ya di la fekk loolu ci kër sëñ Tuubaa la gën a gaaw te mbooleem dëkk yi ci àdduna bi yëpp foofu ci dem juróom-ñaari kër sëñ Tuubaa nga fekk wala juróom Argentine ngay ñëw fekkoo fi kër sëñ Tuubaa te wallaay lazim dëkk boo bëgg dem ci àdduna bi ñu ngi bëgg a ñëw àdduna ñu ngi bëgg ñëw Argentine da leen a tëb moo tax ñëw leen fi boo demee Sénégal fee lu fa rafetati ab moodu moodu Argentine moo ko def waaye du feneen kon nag bu ñu bëggee wan sëñ ne ko defal nga ñu lu ñu kenn deful dañuy jéem a defal sëñ Touba ko kenn defalool château lañ ko war a tabaxal fii barki alxuraan chato lañ ko war a tabaxal fii ndax kenn ku jëne ci ñun koo ci dem këram Sénégal barki sëñ Touba Mbacke danaan kii nu mën a liggéey lii Argentine seen xaalis baaxul peso bi ñu yor moo gën a bon ci xaalis yi fi mu ne ni boo ko doon ma ci àdduna bi waaye boo demoon Sénégal ñoo fa gën a rafeti kër sëñ ñu ko defal na kenn ñu ko li fi ne la sëñ Abdoulaye daan wax rek lu fu waay nekk nekk di bañantu lam la ko defal moo ko moo ko def te ba mu koy def fa mu ko doon defee xatal na xataay goo xam mu a taxaw di ñaan di gertu di gis ko ko wax amin menn mu borom loxoom bu tedd ba moo ko def. nee ak sa ah, mu mel ni daal kon loolu daal moo doon kaddu yi ñu jéem a góorgóor ñu ñëpp rek te te te delloo mbir mi fa mu jugee woon ndax it dama koy wax léegi benn mbokk taalibi rek nan ko gaañu de ñu ngi def loo xam ne walaay la jim lu oyof la ci gis-gis waaye lu diis ci baatin maanaam penc mi ñu toogoon di fi jàngatee xasida yi walaay la jim ku ku ku am na ci ñoo xam ne ku leen yeewoon fa ñu tëddoon wax leen ne maanaam taalibi Sëñ Tuubaa danañ dem ba fu toll ni Argentine nga xam ne maanaam boo xayma woon carte bi Argentine mooy fi mujj ci àdduna mm-hmm. ne maanaam xasida Sëñ Tuubaa danañ ko fa jolle walaay la jim dañ naan loolu mun tane ndax Sénégal ga mu nekk la ko woote woon ñu ni ko sëli bu tàq-tàq mboobu la woon kon ñooñ ku leen woon tey dana dem ba jéggi ay frontières tol toll nii wallaay la sim duñ ko gëm waaye xoola fi mbir mi yegg tey jii loolu nag li ko waral la war seet lan la duñu ay jàmbaar moo tax ñu def ko fi de am na fi ay mag ñu fi jaar ëpp ñu passé fop waaye sëñ Tuubaa moo ñu dimbale boole ñu ci boppam fexe ba ta ba boole ñu barkeelal suñu jëmb yi ba bis bu ñu demoon tey jii ba bisu pénc fu nit taxaw waat ne mës naa defal nangam sëñ Tuubaa far nañ faa taxaw waat ne ko yóbbu nañ ci xasida yi ci barab boo xam barab bu mu rafle woon loolu nag du sañu njàmbaar nañuy fayee sëñ Tuubaa loolu nag mooy nañ leen rey sañu bopp bu wootee ndigalu ndigalam yii te nag loolu moom ñun ñoo ci war a njëkk a dee kon na niñ koy waxee saa su ne rek nañ leen bindu ji ci daayira yi laxasuwaat ci daayira yi te it li ñu am ñu ko fay def te xam ne loolu ñuy def ci daayira yi mooy sañuy alalu bopp alal li muy bari bari bari buñ ko fi bàyyee na sax ñu def ci loo xam lu naqari sañ borom lay doon te luñ ci mën a def mu naqari sañu borom dana la fekk ba ba nga tëdd kon nag jox ko Sëñ Tuubaa rek a wóor boo ko joxul ba ba ngay dund nag faat na dootoo ko jox ba mukk kon nag nañ leen dar nañ leen nañ leen dar dar daayira yi di dem ci daayira yi Baay Faal yi dem ci daayira Baay Faal yi murid yi dem ci daayira murid yi ku dem ku bokk ci daayira yaakaarub sëriñ te moom daayira ci dëkk bi dem fa ndax fédération bi kat li ko wund lool képp la mbooleem jëwriñ ñi ne ci dëkk bi ñoo tënkandoo doonum fédération jëriñ Yankooba mi di seen jëwriñ weer wu dee wu ci nekk ay addi yaa ngi jóge ci daayira yooyu di daje ci réunion bi nga xam moom la ñuy amal kër Bouba Thiam kon ñooñu seen jëf neew néewul waaye nag dana doon gàcce lool ci ab murit nga dem ba alaaxira jot sëñ Touba tiim say morom yoo xam lam leen di jugal seen kanam la koy juug te walaay la jëm doo fayok te mbir mi noonu la demee de sëñ Saliou daan na wax ni jox ma ma dencal la ci rek xat-xat loo jaru ko ci te lu waaye deful sa àndaar doo ko fekk la taxoon mu ni seen ñaari biir yi leen sañu borom bopp jox benn yi bàyyi leen ko nag seen seen borom mi leen sàkk te bind biir yooyu lu ca am moo ko ci def te loolu kenn ku jeex xam na ni lu waay gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt wërsëg xëy doo añ moom amul sañ borom a ko war ak yow waaye seen biir yi bàmmeel yéen lu ngeen fa deful du leen ko fekk barki démb la ko sëñ Saliou Mbacke wax ñëpp di dégg sañuy biir yi bàmmeel nag. di mooy Moustapha mooy Saliou. ndeysaan. ni man lu feeñ li moo ko yor. ndeysaan li nëbb Mbàkke fajar. mooy Moustapha mooy Saliou addee Serigne Saliou. ak Saliou am na solo. waaw daa mel daa rek kaddu yi moom daanaka mun nañ kaa sax daaneele foofu ndax it dañoo xaabaabal di wax rek waaye kuy wax la ñëpp lu ñëpp xam moom naka sëñ Saliou Mbacke daan waxee rek. kuy wax lu ñëpp xam moom wax lu tuuti doy na ca waaye daa fekk ni lii moo ñu war sañu biir rek ndax ñun ñëpp ay jaami yàlla lañ ñoo xam ay taalibi sëñ Tuubaa lañ te fas yéene ñun ñëpp nag dee ci murit googu kon nag ñu ngi jéggalu ci kàddu yi bi wër di baalu ñëpp ak di ñaan yàlla nañ sëñ Tuubaa nangul màggal gi bu ñu ko nangalee yàlla nañu ko làqal foo xam ne yàq du fa yegg ba mukk ñu delluwaat lépp jox ko ko àddiyee sëñ Tuubaa barke borom Tuubaa